Vậy quấy. Đừng đừng không thắng cái đó cái này là bọn này. Bọn mình pa. Euh, ñëwaat fi tey ñaareel bi yoon pour inaugurer teen bi alhamdulilah yàlla yombal nañu ndox mi nga xam ne moom la doon sàkk mooy ndox bu neex boo xam ne dina jëriñ population bi mu mel ni teen bi soo xoolee def nañ ko foo xam ne danga naan kër jegewu ko li ko sabab comme ni ñu koy waxoon ba passé mooy que ne fii lañ am yaakaar am fi ndox mu neex moo tax ñu andi ko ci àll bi ni euh, su ko defee charrette yi di ñëw di jël ndox bi di ko yóbbu ci dëkk yi loolu dañuy sant yàlla subhanahu ci loolu nga xam ne teen bi ndimbal bi nga xam ne dina ko dimbale gox yi nekk fii waaye tamit di ñaanal yàlla ki nga xam ne moo financé suñu benn donateur nga xam ne moom bii du gulet maanaam teen yu bëri def na ko fi daanaka at bu ne dina fi sànni ñaari teen yalla nako yalla fay jëfam joj mi def xam mi ngi dimbal ay nit yu bari bari bari bari mom xamul sax. waaw kon ñoo ngi leen di mas euh, choono gi ak naaj bu tang bi ngeen ñëwee fi ndax naaj bu tang nak trop te ngeen di ñëw rek di ku teen bi léegi bu leen neex tam da ngeen koy liggé rek dem dot leen wut ndax amna ndox ndax ndox mi neex nak ak loolu waaye loolu yëpp def leen ko yeena ngi top ndox mi fu muy tollu ak neex na ndax mën nañ ko naan bes ni ki tay keroog da ngeen noonu tamit dafa sori man leen wul ci ñun parce que man dama doon jóge fii di rooti dëkk boo xamante dëkk bu sori la di takk mbaam bikol yeneen saa meeg si ay 2 heures ay trois heures moyen te ay doon rek laa jël comme nii dem rooti foofu kon nag fu mu nekk nii nii damaa defee sama buntu kër la nekk ñu ngi ñaanal nag ko fi liggéey la ko fi yàlla may wér ak wér la ak gudd fan ak euh, xéwal ba mu ngi def te mu mën na ci jàpp bi ci def teen te du am benn lor jërë ngeen jëf ndox mi neex trop ndox mi moom neex na mën na lu tax ngeen def ko bi daal mën lépp mën na ko waaw mën na lépp dañ koy naan bu ñu amee problème ci forage yi boo ci defee boo jëlee sa yére fóot ko ci day set wëcc waaw teen bi daa am lu mu mënul def waaw am nañu ndox am nañu ndox moom waaw am nañu ndox moom ndox mi neexul ndox mi moom comme korom la comme xorom la buñ xaw ma ndax ñam ngeen ko wala ñamu ngeen ko waaye comme xorom dafa wex xat xat xat dafa wex xat waaw neexul moom waaw forage baa ngi waaye neexul aussi bu dawee weer paan waaw temps yi dafa paanoon ba fii nii dañ ko doon ŋàcc waaw ndax mu jeex takk am nañ forage nag waaye forage bi dafa am xorom ndox mi daal mënu dara boo koy fóotee sax day yàq yëre day tax yëre furi boo waree siim cere jaru ngay sotti xorom bu nekkee togg bi tamit noonu la ñu ñëw nag ngeen indi ñu benn teen ndox bu neex fu mu ne ni coono yaa ngi wàcc ndànk-ndànk bu nekkee 10 kilomètres sax baax na parce que ndox bu neex moom dafa baax si yaram parce que day wàññi feebar bu bëri sa yaram bi am na tamit lu muy def ba ñu kadam yëpp da koy dindi looloo tax ndox bu neex moom jar nañu koo sàkku si biir dëkk bi waaw ku ko fi def yàlla may ko gudd fan ak njaboot bu barke moo xam lu mu bugg si àdduna yal na ko yàlla may waaw Alhamdulillah, nous voilà aujourd'hui euh, au niveau du village de Sop Mbindou, Ndare. Donc, euh, euh, ce village est dans la région de Fatik. Donc, on est là, comme puisqu'on on était venu dans un premier temps pour procéder au lancement du puits El Feki. Donc, on est là aujourd'hui pour procéder à l'inauguration du puits El Feki. Donc, Alhamdulillah, on a eu, machallah, une eau très abondante et, et douce. Alhamdulillah, on a implanté le puits à ce niveau qui est un peu euh, distant des maisons, tout simplement parce que c'est à ce niveau que nous comptons, que nous espérons avoir une eau douce. Parce qu'actuellement, pour trouver une, nappe, pour trouver une nappe euh, où on peut avoir une eau douce, donc il faut, il faut venir à ce niveau. Mais tout compte fait, ça diminue les distances euh, énormes que les femmes faisaient, donc avec leur charrette là, pour partir à des kilomètres pour trouver de l'eau. Maintenant, Alhamdulillah, donc euh, le puits est, près d'eux, Alhamdulillah, et l'eau est douce. Donc euh, c'est utilisable pour la boisson, pour la cuisine et pour beaucoup, beaucoup de choses. Donc nous demandons à la Santala de rétribuer cette œuvre, de considérer ça comme un sadakatul jariya et que les hasanats qui vont découler de l'utilisation de ce puits soient versés pour le compte du jeune redonateur, Parce que ça a vraiment euh, soulager euh, des populations. Et le professeur Assam a dit Man an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasa Allah anhu kurbatan yawm al Celui qui soulage ses frères musulmans d'un souci parmi les soucis de bas Allah subhanahu va le soulager d'un souci parmi les soucis de l'au-delà. Donc, allah fikum, euh, assalamu alaikum wa rahmatullah.